yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak juróom ñaar yuda wor na yéesu nanu bamtu nettali yi weesu benn lu tax sëriñ yi ragaloon jàpp yéesu rey ko ndaxte amoon na nit ñu bare ñu toppoon yéesu ñaar ñaata ci xaalis la yeneen yi wax ne dinañu ko jaay sët bi yàlla digee te ndax loolu am na itam waaw loolu am na jaaye nañu ko ci fanweeri positi xaalis ñett kan la yonent yi wax ne dina war musalkat bi yàlla dige ab xaritam moo koy war ñeent lu yéesu méngale ak mburu mi mu damm yaramam wi ay noonam nara damat juróom lu yéesu méngale ak ndoxu reseñ bi ñu naan ndoxu reseñ bi mooy deretam bi mu wax ne dina tuuru ngir nun juróom benn kan mooy dimbalikat bi yeesu wax ne dina ko yónni mooy xelum dëgg gi di xel mu sel miy dund ci ñi gëm mbind mu sell mi nee na ci Mark saar fukk ak ñeent aaya juróom benn fukk ba aaya juróom benn fukk ak ñaar ci kaw loolu sëriñ bu mag bi taxaw ci seen kanam ne yéesu doo tontu lu la nit di jiiñ waaye yeesu tontuwul dara ne cell sëriñ bu mag bi dellu nag ne ko ndax yaa almasi bi doomu yàlla ju yeesu tontu ko moom la te di ngeen gis doomu nit ki toog ci ndeyjooru aji kattan ji di ñëw ci niir asamaan. bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi. yuda war na yeesu. nettali bi mu ngi aju ci naka la yuda waree yéesu gannaaw bi ñu lekkee reeru bésu jéggi bi yeesu ak i taalibeem jóge yerusalem ñu dem te tund oliw ya booba yéesu ne leen yéen ñëpp dingeen ma daggeeku ci guddi gi Pierre wax yéesu borom bi duma la war mukk yéesu ne ko ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax bala ginaar sab dinga ma weddi ñetti yoon noonu ñu dem ci benn toolu oliw bu ñuy wax Setsemane te tund oliw ya yeesu bay taalibeem yi dem wéet ak boppam mu sukk ngir ñaan yàlla mu ne baay soo ko bëggee te ma kaasu naqar bi moona bu mu doon sama coobare waaye na sa coobare am yeesu ñaan na ñaan googu ndaxte xamoon na li nar a xew te saasa yuda agsi ànd ak ay xarekat ak alkaati ngir jàpp yeesu sëriñ su mag sa ak farisen ya ñoo leen yebaloon ñu ñëw ci yéesu yuda jiitu leen ci yéesu daal di koy fóon loolu tegtal la lawoon ngir won xarekat yi yeesu kenn ci taalibe yi gis mbir mi mu génne jaaseem dagg nopp kenn ci daggu sëriñ bu mag ba yéesu wax taalibe yi ñu rofaat seeni jaasi yéesu ne taalibe bi xanaa xamuloo ne mën naa laaj sama baay te dina ma may ci taxawaay bi mbooloom malaaka mu xel dajul waaye su ma ko defoon nan la mbind mi mën a amee ndaxte mbind mi nee na nii la war a amee noonu mu tere ay taalibeem ñu xeex gannaaw loolu mu wëral ki ñu dagoon noppam ñu jàpp yeesu yóbbu ko ci sëriñ bu mag ba taalibe yépp daw ba mu des pierre mu topp leen daan leen fu sore Pierre dugg ci ëttu kër sëriñ bu mag ba ngir xam lan moo nar a xew ñetti yoon ay nit laaj Pierre ndax taalibe yéesu la ñetti yoon mu weddi ko ci ñetteelu yoon wi la ginaar sab yéesu daal di gestu Pierre noonu Pierre fàttaliku li ko yéesu waxoon ne dina ko weddi ñetti yoon mu génn ci biti di jooy sëriñ bu mag ba laaj yeesu ci lu jëm ci ay jëfam ay seede fen tuumaal yéesu waaye yéesu moom weddiwu leen bi ñu ko laajee ndax moom mooy sët bi yàlla dige ak ndax mooy doomu yàlla ji dafa leen tontu ne waaw bi yeesu waxee loolu sëriñ bu mag ba daldi lool ñu jiñ yeesu ne dafa weddi yàlla noonu ñu ne yeesu dañu ko war a rey bi yudaa mi war yéesu gisee ne nar nañu rey yéesu mu am naqar mu ne bàkkaar na te war naa ko deful dara mu sànni xaalis ba ñu ko fayoon ca biir kër yàlla ga noonu yuda dem takk buum ci baatam dal di xaru sën yu mag ya for xaalis ba jënd ci tollu defarkatu ndaaya ngir di ci suul doxandéem yi loolu matal na li yonent yàlla Yeremi waxoon bi mu naan fab nañu fanweeri posi ci xaalis ya mooy njëg gi bani Israël xayma woon ci nit ki ñu joxe ko ngir toolu defakatu ndaaya ni ma borom bi sante fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lan la yéesu ñaan yàlla ci tund oliw ya yàlla ngir mu teg ko metit ma waaye na doon coobare yàlla ñaar lu tax sëriñ ya bëggoon a reelu yeesu sëriñ ya bëggoon nañu seen diine ak seeni santaane rek taxaw bëgguñu woon ñàkk seen kilifteef te itam dañu añaane woon yeesu ak di ko siis ñett naka la yuda waree yéesu yuda fon na yeesu loolu dafa doon won xarekat yi ne kii mooy yéesu ñeent lu yéesu def bi kenn ci taalibeem yi dagee noppu dagu sëriñ bu mag ba yéesu dafa tere ay taalibeem ñu tuur deret gannaaw gi wéralaat na noppu dag ba mu ne mënoon na woo ay coggali malaaka su ko sooboon juróom lan la Pierre def balaa ginaara sab Pierre ne xam na Yeesu juróom benn ndax yeesu tooñ na déedéet juróom ñaar ndax yeesu yeloon na ñu rey ko déedéet ku matoon la te amul woon bàkkaar juróom-ñett lan la yonent yi wax ci mbir yi ñiy seedeel yéesu yonent yi nee nañu dinañu ko seedeel lu dul dëgg juróom-ñeent lan la yéesu wax bi ñu koy seedeel lu dul dëgg tontuwul fukk lan la yeesu tontu bi ñu ko laajee ndax mooy sët bi yàlla dige ak ndax mooy doomu yàlla ji yeesu na leen ne mooy moom fukk ak benn lu tax bu mag ba wax ne war nañu rey yéesu sëriñ ba nee na yeesu weddi yàlla bi mu ne mooy doomu yàlla ji fukk ñaar lu tax juda sànni xaalis ba ba noppi xaru yuda xamoon na ne bàkkaar na te yeesu moom tooñul te bàkkaarul fukk ak ñett lu sëriñ yu mag ya def ak fanweeri posé ci xaalis ya yuda delloo dañu cey jënd toolu defarkati ndaaya ngir di ci suul doxandee bi loolu matal na li yonent yàlla Yeremi waxoon yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla xam na lépp yéesu xamoon na ne dina am metit te dinañ ko rey yéesu xamoon na ne yuda dina ko wor yéesu xamoon na ne pierre dina ko weddi ñetti yoon yàlla mooy borom doole yéesu wéral na nopp dag ba taalibeem dagoon yàlla lu mu digee def ko wax na jaare ko ci yonent yi ne leen benn xaritu yéesu dina wor yeesu dinañu ko wor ci fanweeri positi xaalis ay seede dinañu ko seede lu dëgg gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu xamoon na ne dina am metit teewul nangu woon na dee ngir nun beneen yoon dinañu waxtaan ci bi ñu daajee yeesu ci bant bi